ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi fii ci Petersen ci amateurs yi nga xamante ni vraiment ñoom ñooy xaar bis bu rëy bi nga xamante ni moo dox ci diggante Coly Faye ak Ada Fass mu nekk bis boo xamante ni bis bu rëy la ñii nag ay commerçant lañ mais bu ñu liggéeyee ba ngoon jot dañuy wàcc sangu ba set dem stade arène nationale wala stade Jom Iba Mar kaa ñu jéggi Ibrahima daal di bisimilah salaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay nuyu. joxal sama gars yi dama lay maa ngi lay ziar maa ngi lay maa ngi sant bu baax. na nga marché bi nu mu def ak mais ñi ngi xalaat ci moom yow ci sa liggéey rek laa lay. waaw neexagul Macky Sall na yombal dund gi li may wax nii bu fekkee da nga koy dagg nga bàyyi ko nee ko dund gi yomb na yomb. ku njëkk ku am cinquante mille francs am saako ceeb am bidon diwlin am suukar am meew léegi saako ceeb bidon diwlin cinquante et un mille la góor ñaa ngi bëgg a dee ñu koy wax dëgg nañ ko wax dëgg te mu déglu conseil conseil lu ñuy jëriñ da leen di fay nañ ko wax dëgg dund gi na yomb man na xaw ma ci làmb dara laajal sama gars làmb bi seen jiir na nga def <laughs> waaw ma wax la benn affaire kii li muy wax ni tegewul fenn bu njëkk ba ay këru cinq ak tiwil ñoo fi nekkoon léegi ay air plus 10 air plus 14 mbër bu njëkk ba 60 mille lañ doon fayeku mbër yi ay Ada Fass yi fi mu doon nii te mi ngi dem Italie ñëw waaw dama ne Ada Fass fu demoon du Italie la dem ñëw Espagne la demoon ñëw fii ñaata taax nga gis Ndakaaru mënatoo seen sax asamaan si ndax ay taax oto yu bees xale bu jigéen bu am 20 ans yor 4x4 buy jar 30 millions boobu dëgg neexul dëkk boobu neexul dama nañ bàyyi caaxaan caaxaan yi Sonko laa wax maa lay jaajëfal bu baax Coly Faye noo ko gisee. waaw man la Ngopaam moom Serigne Saliou. waa di waxaat ni jërëjëfati sëriñ Saliou sunub Serigne. waa di wax ni vraiment lambu jànq la. lambu jàng la Ada nekk na mbër moo xamante ne nii wax dëgg yàlla ci ay génération am wane na fi loo xamante ne nii tey mbër mu ko daan rek man nga dama naan da nga koo mag mbër mu ko daan maanaam da nga koo mag mag gi mooy da nga koo ci lamb lu bari mooy Ada Fass wallaahi azim Ada ndaanaan la te après combat ma kilifay bi ci la ñuy nangu ne Ada Fass ndaanaan la man nga mu Serigne Saliou nag maa wax loolu loolu man ku ma xam-xam nga na Pikine laa faral mais Ada Fass da di ndaanaan. Colifay nan la war a Ada Fass nan la mën a bëree Colifay wala la war mën a bëree ba am ndam ci kaw. non xam nga Ada Fass dafa nekk mbër moo xamante ne nii ci moment bi ñu toll nii euh, Ada Fass départu Balla ko xamoon démb bi Balla Gaye bi muy soog a dugg ci làmb Ada Fass loolu mooy mooy boobu Ada Fass gëm mooy jàpp bëre daan dem ñibbi. te benn cong lañ la koy song làmb ji jeex waaw. waaw ah, ñoo ngi ziar bu sant nañ wér gu yàlla sang Ndiaye. waa làmb naa ko seedaat Ada Fass maa ngi koy gis nii rek mais taxul ma xam ko trop trop mais maa ngi koy waaw taxul ma miin ko mais qualifié comme noonu Ada Fass sax laa gën a suivre ni qualifié mais daal comme li nga wax nii rek xale la boo xamante ni am na yoon li mu war mooy. dëggal boppam ci làmb yi xam ne lu ci waay am war na ko cee mën a am mu am ci taxawaay bu bu bu mat parce que fi mu toll nii parce que booy xool Fass man nga ne moom nga fay gis vedette boo xamante ni mi ngi génn na ko ay mbokkam jàppale taxaw ko incha allahu rabbi li bëgg lépp dina ko am tam moytu yenn tamit moytu ay affaire mafia nii kiic kiic yooyu day yàqal mbër yooyu baaxul na bàyyi yooyu dégg nga waaw loolu rek la am luñ ko digal yàlla na ko yàlla may ndax am na solo sama waa ji bàyyi jili ziar naa la maa ngi sant bu baax yaa tegoon un million yi de tegoon un million yi franc mi ngi nii de waaw ban lan ban lan nga am ba ñemee jël un million teg ko ci franc non damaa xam franc damaa xam li franc damaa xam doole moo dàq bëre mooy loolu daal dama ko xam waaw ñeme naa cee teg lu nekk. Ada Fass Coly Faye ñeme nga waaw ñeme naa teg mais nag du ma teg ci kenn ndax boo ñemee teg ci kan nga. non su ma doon teg moom ci Ada Fass laay teg du ma la nëbb. ma teg ci Ada Fass. non dama xam ne Ada Fass bi nii dafa nekk mbër boo xam ne nii neexul calculer quoi mën na bëre mën na xeex mën na lépp daal waaw. waaw. Coly Faye la mën moom. non Coly Faye mbër la. mën na bëre mën na ambiance mais Coly Faye dafa nekk mbër boo xam ne nii allisir l'issue wu ko. bu combat bi yàggee. bu diiree day am problème. parce que bi muy bëree kéwél man kéwél maa ko yóbbu kéwél sama rakk la bi muy bëree moom maa ko yóbbu te gis naa li xew ji combat bi moo tax ma ne la kolifay Faye combat bu diiree arrangé wu ko loolu la. dóor mu daanu ci combat. si no bu door mu daanu moom point la kenn ku ne mën nga door sama morom mu daanu waaw dóor mu daanu moom ci làmb du dara. point la rek ku ne mën nga dóor sama romb daanu. ñoom moo gën a technique rek. Eh? bu fekkee ne ci wàllu technique nag man Ada Fass laa gën a yaakaar ne moo kii moom moo ëpp technique quoi. non ñun man moom moom laa faral de ma part personnelle man moom laa faral. man moom ak man Ngopa Ada Fass laa sa waa ji. Coly Faye. kaay la ci kan. 5 maa ngi jaar fas. 5 millions ci Coly Faye. ma ma jéggi. waaw ah, waaw. carte kaa ba commencé la. juróomi. 5 ñëwal kuy tag ne ñëw ku ñeme yoon ne ñëw. kuy ñëw. waaw ñëwal baal ci kóol yi koo teg Ada Fass. Ada Fass waaw 10 millions ci ko. Serigne Bamba xaaral ma ñëw. am na yow laa xaaral ma ñëw 5 millions la teg jeexal xaalis bi. maa ngi ñëw. 5 millions la teg ci Ada Fass. Mor nga wax nga ni. da ngay teg. andi xaarim ca. Mor jox ma déedéet dugub yi beneen bi. juróom. barke alxuraanu karim bu tegee ci. kii day sóob kii tegul. kii tegul kii tegul. damay teg yow ci tegul. damay teg ah. waaye ñëwal yow ñëwal. ay Diouf na ma dal. 10 millions ngi nii ci Coly Faye. man na man damay ragal. 10 ah, millions ci Coly Faye. barke alxuraanu Karim. na ko caméra bi topp ñu dugg sama place ma jox la 5 millions. ñu dem ma jox la 10 millions nañ dem. Coly

Ah, aju aju aju nag bàyyi. aju eh, eh, ma liggéey bi yow xam nga nu ma wax de arrière. moom daw na. daw na moom daw na. mais bu bëggee ma dugg ci place bi jox ko juróomi million léegi ñu teg mais daw na. man de loo wóoloo say million ba mbër muy bëree rek nga ni teg na non man damaa xam mbër yi ma yor man damaa xam mbër yi ma yor moo tax ma ñemee teg sama xaalis. ama seen Modou kër laa teg. ma yi kër laa teg Modou Lo da koy dóor mu ne te na ma ko waxee noonu laa amee ah waaw yow Lamine man li may wax dama ko xam barki Serigne Bamba am na solo. maa ngi nii man. yow Baye maa ngi nii Alphonse bu Ada Fass musul tapet loolu sax Ada Fass lu mu ko wax ma ne da kay def force wul du ragal maintenant la dëgg Fass. déggoo ma lu ma koy wax ndam rek barki Serigne Touba Mbacke lu ma waxoon si Franc mooy am déggoo ma Franc dama ko day daan déggoo ma de barki Serigne Touba Mbacke ñun parcelle nañ dëkk ku ñu xool xam ne ay doomu parcelle nañ aara kase billaay wallaay taala aara kase lamb lamb du ma koy seetaan sax lu bëri jiili non ñoom kay nañ fair play rek en tout cas ñu def ko ci sport rek non a bañ a violence ñoom ñu def li leen war ci sport rek man loolu laa ciy wax. kese waaw ku ku am ku yàlla may ndam daal ñu xam ne yow yàlla may ndam ki ci des xam ne da doon wut bu ñàkkee bu ëllëgee dina am incha allah. ok ji maa maaleykum salaam yéen waa Lutte TV ñu ngi leen di fay. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yéen tam bu tedd bi sallallahu. fay Ada Colyphé Ada Fass euh, làmb la rek làmbi gone la mu ñaar ñu nekk ci yoon euh, nañ ci def fulla def ci fayda ci ñoom ñaar ñëpp rek bëre ko ci yoon teg ko ci yoon làmb xele moom ak làmbi mag du doon benn làmb xele dafay di xele bu bëggee dem du xaar du yeex dañuy bëre rek ku ci daan du yàq ci yow dara ku ci daan du yàq ci dara waaye bu baree calcul mën naa indi leneen nañ daw rek daje na ma la waxoon rek ca làmb jële weesu. làmbi ko rek làmb mag moom du benn du mënta doon benn làmbi Ada Fass nag ak làmbi Coly Faye làmb ji war a neex la war a doon. ñaari yi kat am na ku ci dàq xeex sama ku ci dàq xeex xeex bi amu ci njëriñ jëli bee ci am njëriñ nañ bëri rek dóor yu bëri yi ci làmb ji sax léegi du maana ndax kenn du laaj ko dóor ku daan rek la ñuy laaj nañ fexee daanante rek làmb ji neex daal di jeex. ci jàmm ak salaam le maire gagne sama ñaari doom lañ sama doomu ko organisé booy paate petit promoteur tegu ci yoon moom it yàlla na ko yàlla def promoteur bu mag boo xam ne fi ñuy dégg ay moroomam ki nawleem dañ ko fa dégg te yaakaar naa dañ ko fa dégg na am na jom am na fulla am na fayda booy ko darit wax dëgg yàlla dooni xaritam dooni doomi ndeyam ku mel ni booy jibi seen ñu koy waay pop baa ku mel ni booy euh, ay xaritam ak ay doomi ndeyam daal di ko dal waaw ñoom ñëpp rek daal yàlla na ci yàlla def jàmm. jërëjëf kilifa gi maa ngi lay nuyu. oui doole siyaar baay man Mansour la. Mansour waaw. Coly Faye Ada Fass. waaw Coly ay waa Caaroy lañ dee. ñun moom gëm ni moom xoola Coly Faye du moroomu Ada Fass si combat. waaw bu dee sañ-sañ Coly Faye ëpp sañ-sañ bu dee kay bëre Coly moo ko dàq a bëre. fi Coly Faye jaar Ada Fass jaaragu fa daaw laajoon général bu Fass bu ko laajoon balaa jël avance bi dina teey lamb milieu la nag. Ada Fass na daanu général nee na tam non nee na nee na gis ma de général fes la teg la moo tax ñu ko victoire bi victoire bi dañ ko jox Coly Faye parce que dafa daan lamb milieu la nag ndax Ada Fass bàyyi xel loolu. Coly Faye la ñun ni ko ñun ñun waa Thiaré dañoo teg suñu xaalis si moom. waaw su Sounkhara dañ ko jël teg ko si Coly Faye dañoo bëgg na xoolal mu daan ko jël bu duma ko ba pare soog koo daan. mun naa nekk mun na duma Ada Fass daan. naa la xamal leen de combat boobu noonu ku kuy xaar na si xaar xeex bu metti dañuy xeex dañuy bëree. Hmm? Ada Fass dina xeex dina bëree. kole ko man foofu fukki moroomam Coly leen man ñun loolu lañ gis. fi Coly jaar Ada Fass asaka ji sax. ndeysaan maa lay jaajëf